may gërëm bu baax nag rajo Afia di ko jaarale ci kilifa gi nga xam ne moo nekk ci bopp bi sama doom di suma xarit di sama mbokku taalibe ndax taalibe maam sa amat dàmba la bu dëggu man it may jéem a nekk taalibe wu Seydi Aboubacar Sy kon moom it sama waaye mu def ma bàyyi baax lool ci man waaw di ma di ma waaye loolu yemul ci moom dafa roonaat ci ñi mu bokkal rajo ku ma ci tudd rek nit di wëllëre bu ma leen tuddee ñooñu ñooñu ci wàllu daara ji du ñu yóbbaale waa daara ji yëpp ak bu tudd itam sama doom sama xarit fa tabarakallah nekk sama conseil di ma digal muy euh, muy euh, Madior Mbaye ku baax ku yàlla baaxal ku yàlla may xel bu rafet ko tudd nag di nga xam ne man ah man fan sam laa ci rajo ndax taxawaayam bu rafet xam-xamam am conscience bi mu am ci réew am ko ci Grand Yoff fa tabarakallahu muy Mamadou Fall bés bu ne ma ñaanal ñoom sax na Kumba Jaay fa tabarakallahu bu ma tuddee ñooñu rek pour ñu yóbbaale ñi ci des ñëpp la samay mbokk dara ngi fi di ustaas waaye dama koy taxañ ci biir taxañ bi waaye dama ko seeti noonu rek tudd ko fa tabaarakallaahu ñu ñëw ma nekk porte parole ñi ma tudd sànq ci xale ñu ne naa leen feeñal seen mbégte ci def defal leen ko jaarale ko ci sama jëm ñu ne tamit dañu leen gërëm dañu leen sant ci mission bu pare di ngeen yor te yéen a koy rafetal te Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum dafa wax ne journaliste wala ñi yore média mission wu yonent la ñu yore nit mën na taa defaroo ba àgg ci boromam dafa tabaarakallaahu loolu yéen ko bàyyi xel ci seen kàddu ci seen waxin ak principe mabda bi nga xam ne moo yanu wàllu communication te alquran al karim dëggal ko te mooy Serigne Cheikh nee na euh, communication daal ci ñaar rek la bu njëkk bi mooy lu baax am njariñ te mën a baax ci ñëpp dana ëpp naa dëgg na ko lu bon baaxul ci kenn te mën a yàq lu bay jarul siiwal te fa tabaarakallaahu boobu taxawaay képp ku gëm lu Asiya nag laa wax di njariñu waa Grand Yoff ñun waa Grand Yoff la war ñu jël suñu alal dugal ko ci rajo bi ba rajo bi jur télévision ñun ñëpp la war ñu def ci ñaar yëpp am matériel de dernier prix bu moderne ba nga xam ne ñii fi liggéey ñu teel bi nii di fi liggéey di ngay nekk dans les conditions optimales yu gën ba mën feeñal seen manoore ci anam bi gën a ak anam bi gën a waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu jël seen ngërëm di ko teg ci loxo soxna Pend Sougou dem na ne xam ne ne yoon yu mu jaar fi mu tegu doomu daara nga ko mën a yaakaar bu dëggal doxinu daara la yor te loolu moo ñu war ñun doomu daara yëpp ñun doomu Sénégal yëpp li ma fa gis léegi rafet na kontaan naa ku ne xam na ne man ma jóg jóg maire Grand Yoff mooy sama pété ci sama doom yàlla def ko suñu diggante waaye miin naa ci moom lu ma rafetlu te bokk li ma koy digal saa yu nekk. fu mu fekk Adama Faye jox ko cër yëkkati ko fu mu fekk Cheikh Bakhoum jox ko cër yëkkati ko fu mu fekk Mora Cissé noonu fa tabarakallahu nekkeen boobu ngeen nekk yéen suñu njaboot yi te yàlla dogal ngeen féete ci wàllu taxawu askan bi ci politique loolu mi ngi dalal suñu xel te ñu ngi leen ci encouragé di leen wax ne yéene boobu ñu am ci Madiop mu dajee dogalu yàlla yéene boobu am nañ ko ci yéen ñëpp ndax nit du xaar ba ñu fal ko dara mu soog a taxawu bëncëm waaye fu mu mën a nekk ci domaine bu mu mënti doon ci position bu mu nekk man na faa jariñ askanam ba ñëpp yëg te loolu la xam di ko yëg. man mosuma gis Adama Faye bi ma koy gis tey jii la te li yàlla dogal mooy bi ma koy gis moom ah sama bët bi fëtul waaye nag yàkkamti woon naa trop bu ma ko gisee wax ko ne ko ne sa tur bi de laaj dina ci baax ci raf def lu ci jëflante bu rafet loolu xale yi fi nekk na la mel na ko dëggal li ci def dogalu yàlla la moo koy waaye nit du xaar ba yàlla dogal ci moom bu nekk njiit bu soo baax da ngay baax rek da nekk njiit loolu la gis ci yéen ma ci lool di leen yàlla yéen ak mbëjoo ak ñi nekk garaaf yàlla def ci garaaf muy secret te ñi yàlla may basi na ñu koy xam yàlla na ko yàlla yaatal ci loolu mooy lan am na ku ko fi tudd sànq Grand Yoff c'est le lieu des chemins croisés Grand Yoff c'est un melting culturel xeet yëpp ñoo fi daje yëpp ñoo fi daje xeetu mbaax yëpp ñoo moo woon adduna bi exemple boo xam ki nga xam ne moo jiite l' église catholique mondiale muy le pape def ko rafetlu bind ci message yónnee ko fii ci Sénégal.